mois de mars bi bu deux mille vingt et un Sénégal am na fi ay événement yu bari yu fi passé amoon na fi événement yu ngeen wax tey yëngaloon Sénégal mooy le 2 mars. diine bu wàccee ëppul defar jikko waaw wax ju am solo la nañ ko dégg. xam nga lislaam ak politique kenn mu leen tàqale ñu leen tàqale yëpp xamuñu lislaam lislaam bi muy wàcc dama bëgg képp ku fi ñëw am loo yóbbaale defar jikko rekk ko taxaw ñëw yonent bi waxal ko boppam nee na dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu baax yi am na jëmm yoo xamante ni du ñu ànd ngir àdduna dañuy natt nit ba xam ni kii jukko yi lislaam gërëm mi ngi ci moom ñu ànd ak moom ñun dañ caa bëgg a bokk ndax li xew léegi baaxul fecc ko la rek fenn woor lekkaale li jàmm fu tooy nga dal fu wow nga daw loolu diine loolu la doon combattre si moo tax lislaam wàcc Adja Ndeye Tické nag connaissance de cause lay waxe diggante lay waxe jaxasoo ak moom lay waxe ndax yii liñ ma ci gis du bari parce que aw jot ñun bokkuñu ci ñuy lambar lambar yi duñ ko def waaw ci suñu daara suñu kurus suñu liggéey waaye Ndeye Tické lu mu xew la ma ñëw jikkoom la jikkoom la waaw ndax Ndeye Tické nitam jaral na lu nekk kenn mën naa wax lii sama place Ndeye Tické nitam jaral na ko lu ne kon léegi kon léegi ñun ñii ñu tamit Ndeye Tické war nañoo jaral lu ne ñuy seere ci turu kilifa ji mi diine yi ma jébbal seen kàddu mooy Ndeye Tické as gor la as gor la Adja Ndeye Tické ab jullit la

damay président mu bàyyi ñu fi ajaniti Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre un vibrant hommage à une dame de valeur pour son engagement au service des populations. Ndeye Tické Ndiaye Diop est ingénieure en technologie halieutique. Originaire de la ville de Thiès, et y exerce des activités en faveur des populations locales, telles des financements accordés aux femmes ou des investissements pour la salubrité de la ville de Thiès. Ce qui lui a valu le titre d'icône 2016, qui lui est accordé en récompense de ses actions contre Djadjev. D'abord secrétaire générale au ministère de la Pêche, elle est nommée directrice de l'Agence nationale des affaires maritimes du Sénégal, ANAM, en 2017, où elle à s'occuper de la mise en œuvre de la politique de l'État du Sénégal en matière de marine marchande et des réglementations maritimes mais aussi nommé autorité nationale de la sûreté portière. Ndeye Tické Ndiaye Diop nommé ministre l'économie maritime, numérique et en avril. Elle est aussi nommée porte-parole du gouvernement du Sénégal au côté de son excellence Elle est également aussi nommée porte-parole du gouvernement. Pièce maîtresse de la politique du président de la en Thiès. Ndèye Tické Ndiaye Diop n'a jamais cessé de travailler pour la mise en de la vision du président Macky Sall. Elle ne s'est jamais d'occuper le terrain. Toujours présente pour ses camarades de parti, pour les concitoyens de manière générale. Ndèye Tické Ndiaye Diop a réussi là au nom des responsables politiques tchessois qui ont échoué à ce siège. L'unité et la cohésion au sein du, de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Thiès. L'exemple patent est lors des dernières élections présidentielles de 2019 où elle a mobilisé tous les responsables de la coalition, hommes comme femmes, autour de l'essentiel qui était la réelle élection du président de la République au premier tour, chose qu'elle a réussi avec brio, Madame le ministre. À cela, il ajouter des visites de proximité qu'elle avait entreprises chez les responsables de partis et de mouvements de la coalition Benno Bokk ce qui a porté ses fruits à la stabilité et à la cohésion notée au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rappeler au président de la République Macky Sall que l'heure n'est pas à la démobilisation, que l'heure est à l'unité. Avec la nomination de Madame Deïti Kenyaï au poste d'ambassadrice au Brésil, on en félicite le président de la République. C'est Thiès aussi qui est en perte aujourd'hui. C'est Thiès aussi qui sera sevré de sa sève nourricière. Ndeye Tické Ndiaye Diop est une mère. Ndeye Tické Ndiaye Diop est une sœur. Ndeye Tické Ndiaye Diop est une repose l'espoir pour la conquête de Thiès lors des élections locales prochaines inch'Allah rabbi. Euh, di nuyu madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop euh, di ko gërëm di gërëm président de la République aussi. Euh, ci responsabilité yi nga xam ne jël na ko jox ko madame la ministre Ndeye Ndiaye Diop euh, ba mu ko nommé secrétaire général ministre des pêches économie maritime la ko woo dugal ko ci politique ne ko jàppale ma Thiès madame la ministre ñëw Thiès woote terrain bi gën a mag ci Thiès Ouest ñëpp wuy si ko mu dugg si parti bi bu ne xam na ne bi muy dugg ci parti bi président de la République dafa yabal ministre Mbaye Ndiaye bi nga xamante ni ni mu ñëw représenté ko wane ni moo ko yóbbu moo ko wax duggal ci parti kon kooku tëbul rek def politique ndigalu président la république ci duggee ba mu ci duggee ba léegi au niveau de Thiès ñëpp dañu tàcc wax ne am nañ un brave boo xam ni ñëw na indaale ay talent ay qualité ñun ñëpp dañuy taxaw pour jàppale ko il faut ñu xam fi ñu jugee ak fan la ñu jëm balaa ñuy mën a sori ñëpp di ko jàppale président gis ni def na ay preuve ci Thiès am na ay renseignement am mu jël ko nommé ko directeur général ANAM agence nationale des affaires maritimes bi ko ñëwee ñëw génne ay leget installé ko ci commune Thiès yëpp jigéen ñi gis ci seen bopp ne am ñi ngi doo a am ki ñu doon xaar nag un brave femme boo xam ni day ñëw jàppale président de la République à Thiès ñu dem élection législative ñu gagné département de Thiès gagné deux députés yëpp téye ko suñu loxo mu liggéey ci liggéey bu am solo bi ñu ñëwee présidentielle jigéen ñi ne ko yaay doon suñu coordonnatrice départementale bu comité électoral kenn tegu ci baat ñëpp tàcc ne loolu lañ doon xaar. bu ñu génnee ci présidentielle gis ngeen résultat yi am au niveau national ñun ñooy troisième ci wàllu résultat président de la République Macky Sall félicité na Thiès ci secrétariat exécutif national loolu lu lu ñu war a xamal ñëpp la xam ni dañoo def ay preuve bu ñu paree président de la République jël ko nommé ko ministre de l' économie numérique télécommunication ak poste ñëpp gis Sénégal sa daawuñu café numérique mais bi day dikkee dikkee gis nañ fi ñu ko yóbbu ba président de la République Macky Sall ñëwee jam ñaa ngi daf koo félicité ci kanamu ñëpp moom li ñu ko dénkoon kon moom wàcc na buñ ko jugee mu génne ko ci gouvernement bi indi ku ñuy wax benn ministre boobu soow laa koy tuddee benn soow la ndax soow mooy ku mag yi eh, bu ko jëlee jox ministère bi nday jigee bàyyiwul base bi dafa mel ni dafa renforcer waat base bi continuer di jàppale Thiès waay ak sénégalais au niveau du département de Thiès ku ne mën nga ko wax ba tey bàyyiwul ñu naan waa day dëgg xanaa wàccewul ko ñu ne moom xàmmeewul falu ak bañ a falu li mu xam mooy ba muy dugg ci politique dafa waat du ci génn parce que du wor kenn du trahir kenn du wan kenn ginnaaw dama ciy nekk nekk dafa la yàlla ci génne alors buñ tollee ci loolu ñu gis situation bi ñu xëy suba tey conseil des ministres bi passé président de la jël décret def ko ambassadrice ambassadeur Brésil dafa ko tegal ko ci résidence Brasilia mooy léegi dama nga dëkk foofu loolu nag dafa jox ñu jóg ñun ñu àndoon ak moom parce que suñu jógul suñu jóg heureusement ba lii kenn wootewu ko xol yëpp ci daje bu nekk ne dañ koy def parce que duñu nangu ñu jël suñu ndey ticket yóbbul ñu ko fenn suñu ndey ticket suñu wet lañ soxla loolu nag kenn moo ko mën a def muy président la Macky Sall ndaje bi dañu wane ne d'accord uñu ci exil bi d'accord uñu ci fi mu ko yóbbu parce que ndey ticket du fonctionnaire international kese day def te politique bi muy def da jàppale son excellence président de la république loolu mu koy jàppale bëri na adversaire yi nga xam ne ñoom lañ amoon Thiès te léegi nee nañ mburoog soow lañ ñooñu Ndeye Tické xaw na leen a rey ci terrain bi ba instant yii nii bu ñu leen nee dañoo jël Ndeye Tické def ko ambassadeur ñoom ñëpp dañoo kontaan pour profito di wax waa euh, militant yi fi nekkoon naan leen retourné waat leen seen kër mooy nañu dem nanguwaat suñu militant ñu dem jëlaat leen te loolu nag gënaluñu ëllëg ndey Tické sunu wet la ñu soxla président Macky Sall am na lu ko jox loo xamante ni fii Sénégal lay yeewoo ku ko bëgg a gis gis ko ku ko bëgg a jot ko muy saafara jafe askan loolu la teesuwaay wax soo soo jëlee Ndeye Tické génne ko nag jàppal li jàppal ni yóbbaale nga xolu jigéen ñi na jàpp ne yóbbaale na xolu imaam na jàpp na yóbbaale na xolu ndaw ñi na jàpp ne yóbbaale na xew xolu coalition Benno Bokk Yaakaar ndaxte waa PID ñu ngi fi waa Parti socialiste ñu ngi fi waa ñu ñëpp ñu taxaw wax président ne ko sañ ngaa yóbbu nit fu la neex waaye ñun dañ lay ñaan en tant que ndawu parti ministre Ndeye Tické joxal ñu ko loo xam ne day nekk ci dëkk bi di fi yeewoo parce que renforcé woon na parti ba mu jël niveau du ñu nangu kenn nag di waraat di yàqal ni na leen dellu si war leen fa ngeen jógoon di nuyu tamit jigéen ñi nga xam ni dañoo am tey naqaru xol mënuñu koo wax lu dul di ko manifester ci rafet rafet mooy ci lu rafet mooy solo ba jekk ñëw ak respect diw am seen soxla di ko wax maa ngi féliciter madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop mes félicitations à madame le ministre Ndeye Tické Ndiaye pour cette nouvelle nomination qu'Allah vous te yan bi oyof ci yow le meilleur reste à bien à vous. tey bi rek dafay bés boo xamee ne man euh, biñ ma ci woowee ne dañuy sargal Ndeye Tické dama répondre positivement de façon spontanée parce que bës bi li ma permettre dafa bari te rëy bés bi. dama ci remercier le président de la République son excellence le président Macky di ko remercier parce que defe naa ne ah su fekkee sama mémoire baax na de nomination yi am en si peu de temps pour Thiès nomination yi bari lool donc di ko féliciter di ko commencer ci man nii mu demee PCA wu FONGIP li ci teg yeneen pos yi waaye ki waral bés bi mooy suñu sœur suñu xarit man moom damaa ne sama sœur la sama xarit la parce que ku ma xam-xam ne Somme laa dëkk te Somme mooy Sikri Ousmane Ngom Sikri Ousmane Ngom ak koñ mel ni Walidaan ci Somme la ñu juddoo wax ci Ndeye Tické nag dafa yomb xam nga ku baax wax ci moom dafa yomb lool. Ndeye Tické dafay naa ne des voix plus autorisées wax nañ ko fi Ndeye Tické nit ku diine la Ndeye Tické man moom xam naa ne nitu xam-xam la Ndeye Tické symbolise la courtoisie ku am yitte la ku am njëriñ la man nga xam naa ci dara parce ñoo wax ko leen ko waxee campagne yëpp suñu ñaari kilifa yi ñooñu teg ñu ànd ak moom liggéey bu mucc ayib dana ko fii biir Thiès dafa di nag dafa di nag ñun ay euh, Baye Fallou Macky ay Baye président Macky Sall lañu kenn mënu ko kenn mënu ko ay Baye Fallou Macky man ni li may politique dama leen wax ne su ma amee ku mel ni ndey dikkee lu ma bëgg mën na fu ma bëgg mën naa faa ndey dikkee est devenue une réalité à Thiès ak base bu wóor boo xam ne man ñoom xam naa ko base bu fidèle base bu wóor waaye comme ni ma koy rappelé rek il faut nit ñi tamit xam ngeen saa yu parce que defe naa ne ku ñuy demee postes yi fi lim yëpp parce que defe naa ne euh, cursus su jaar-jaaru Ndeye Tické néew na sooy compter jigéen ñi ko fi am man gisuma ci ñaar waaw su bëree tam euh, gisuma ci lu bëri waaye tamit reconnaître ni ku président bàyyi xel. waaw waaw pour président bàyyi la loolu man lu leer la Ndeye bi ëpp ay nomination ci euh, ci nguur Macky loolu loolu ndam lu rëy rëy rëy lu rëy rëy rëy Ndeye Guèye yàlla la sàmm li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal amiin loolu vraiment ku ko ñaanul lay diggee defe naa ne bëgguloo Thiès bëgguloo Thiès lay diggee moo xam ne nekk ci xolam yàlla na ko yàlla gunge ak fu mu mënti nekk nag fu mu ko mën a teg parce xam naa am lay diggee ci boppam bàyyi dëggal Macky la Macky Sall ku bàyyi xel lay diggee la loolu wóor na dañu ñaan nag ñaan leen sa ay dégg naa fi ay ñaan ku ci nekk ñaan waaye li ngay di bëgg yàlla na ko yàlla defal moom moo xam bu bëri ak ci xolam sant yàlla di julli si yant bi di delloo njukkal suñu imam yi fi ñëwoon léegi kër diine yu bari yéeg nañ fi tey ay délégation boo demee ba ay kër diine yónni fi ay délégation si réunion boo xam ni politiciens yi ñoo ko organisé loolu am na cofeel bu ñu am si kooku tax ñu ko organiser muy suñu sœur Ndeye Tické Ndiaye doon naa fàttali léegi nii mois de mars bi bu 2021 Sénégal am na fi ay événement yu bari yu fi passé amoon na fi événement yu ngeen wax tey yëngaloon Sénégal mooy le 2 mars suñu président Macky Sall am fi taxawaay bu rafet taxawaay taxawaay état ak taxawaay politique taxawaay état bi moo doon démontrer ne une rigueur républicaine taxawaay politique mooy indi na solution dans l' apaisement social et politique loolu lañ si delloo njukkal beneen événement bi mooy célébration 8 mars célébrer ay jigéen àddina bépp mu jóge 8 mars jëw 24 mars seppi benn jigéen ci Sénégal benn rek décision la amoon conseil des ministres benn décision lu jël mooy benn jigéen lañ ko jëlal kenn mooy jigéen boobu ndey Tické Ndiaye fu mu dëkk Thiès kon président wàcc fàttali commune ko boobu benn décision individuelle lañ ko jël muy Ndeye Tické Ndiaye rek la ñu nommé comme femme hmm. dans Sénégal ci commune ko boobu comme décision individuelle loolu marque la pour les femmes marque la pour leur sœur Ndeye Tické Dia loolu lu wax ni dañ ciy sant président ndax musul waxuma sax Ndeye Tické mais musul fàtte département ak région Thiès si nomination ak jàppale loolu moo tax département bi am résultat yu baax si élection présidentielle bu ñu fàttali Ndeye Tické moo doon defe naa première wala deuxième yu ëpp parrainage fii si élection présidentielle kon loolu wane na ni liggéeyam taxaw na rafet na ñu dellu si mu nekk kenn def ko ko de femme yi ñoo ko yëkkati jël ko ni ko yow yaay nekk suñu coordinatrice départementale des femmes de benn Bokk Yaakaar mu bootaale jigéen ñi bootaale góor def fi liggéey bu rafet ci élection yi passé ñu def ko fi ministre de l'économie numérique ñu def remaniement yàlla def mu nekk leneen ba tey ñuy xaar di ko ñaanal yàlla seetluwaat ko def ko ambassadeur du Sénégal au Brésil loolu itinéraire politique gën a ko rëy secrétaire général ministère directrice ANAM ministre économie numérique ambassadeur ah, en un an. Quelle carrière, hmm. quel itinéraire, peut-être le plus illustre que cet itinéraire. Nous en remercions le président et nous félicitons Ndeïtike par sa compétence et ses capacités managériales de piloter le département de Thiès.